salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar ndaw ku jégi nekk Touba ñoo wàcc ci terrain bi amal opération buñ duppee takk sa masque teeru sa ñu ngi ko tàmbalee nag ci point de concentration yi bokk na ci marché garage ak ala yi nga xamante ni moom la chauffeur ci gën a emprunté bi la yoon nag ñu ngi woon nag ci garage Dakar bu njëkk ba foofu nemmeeku nanu ni Carrefour la ndaxte oto yi dem Mbàkke wala sax yu jóge ci yeneen gox yi du dugg Touba wala jaaykat yeeg chauffeur sec apprenti yi ñëpp foofu la ñuy tase moo waral ñu amal fo opération bu am solo euh, sant yoneen ma dalale dalale nu yoneen matul muqam fa umre ya samba aqada samba intina iyal ku sopp Sëriñ Tuuba waxataka waxataka waxataka ديون المدء المقافى عمري يتوى وقد سافروا ñaari loxo ca kaw ñu màggal sëñ Touba jar na ko ñaari loxo ca kaw ñu màggal borom Touba jar na ko Cheikh Massamba ko mas mat ul muqafa عمري takk sa masque teeru sa gan di concept bi ndaw yi nga xamante ni ñoo bokk ci kujje gi taxawal objectif yi bokk na sii di lii. ñu ñëw nag di xeex maladie boobu donc sëriñ bi digle ne nañu takk ay masque ci màggal gi moo tax ñun jeune opposant yi ñu ànd booloo doon benn. am benn concept boo xam si dañ koy lancé ngir xeex li nga xam ne mooy jàngoro ji ci màggal bi pour ko màggal Touba bi am zéro cas concept bi mooy takk sa masque teeru sa gan tey takk sa masque teeru sa ci lañu ñu xëy tey ngir wër li nga xam ne mooy garage yi marché yi lieu yi nga xam ne mooy lieu yi nit ñi di daje pour wax leen ne leen ndigal li kat dafa jóg jógee ci xalif général des mourides pour que képp koo xam ne si yaa ngi ci dëkk bi wala ku war a màggal si nga takk masque donc loolu mooy concept bi nga xam ne moom la ñuy lancé tey vraiment ñuy rafetlu nag euh, ànd bi nga xam ne jeunes yi ànd nañ ko euh, jëm ci liggéey bi ngir fexe ba magal Touba ren am zéro euh, am zéro cas ci li nga xam ne mooy Covid bi. waaye tamit ñu ngi soññi ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci kër yi ak gan yi ñëw bu ñuy ñëw ñu indaale seen ay masque su ko defee dinañ mën a màggal te duñ am benn cas coronavirus. tuddee ko takkal sa masque teeru sa gan yaakaar naa ne noonu lañ tuddee kuréel bi continuer ci boobu ba léegi ñu di ci liggéey ñu recruter ay masques yu bare bare ñu ñu ñu ko fas yéene tim jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi ndax nit ki bu fekkee ne tim bu bëggee màggal si buy màggal si. dafa war a fekk ñi nga xam ne tey ñooy teertu gan yi wala ñooy dalal gan ñi tim ñu ndigal li nga xam ne moom la sëñ bi joxe ñooñu itam doxe ci ndigal ñu fas yéene doxe ci ndigal ñu doxe ci ndigal loolu moo tax tey jii tim nag ñu def tey journée bi fas yéene tim séddale ay maska ànd takk euh, teeru gan takkal euh, takkal sa masque teeru sa gan ñu fas yéene continuer li nga xam ne tim moom mooy mooy liggéey bi ànd kook ndawi opposition bépp ndawi opposition bi nag buñ ko dee wax lii rek la ndax ñun ñëpp ñoo bokk département bi te département bi ginnaaw ñun ñëpp ñoo ko bokk tim ah lii tim dafa nekk loo xam tim jàpp naa ne képp kuy rafetlu tim lii war nga ko mën a rafetlu ndax ñun ñooy xàccandoo ñooy dóorandoo kon lii nag jàpp naa ne kon tey jàpp naa lu am solo la fas yéene nañ commencé daal départ fii ci gare Dakar gare gare Dakar bi dem ba ci côté jumaa ji ak lii yi nga xam tim moom la moom la cité pour ñu fas yéene dem ci foofu fas yéene dugg ci askanu kenn ku ne ñu fas jox la masque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 هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر